maa lay ziara bu baax patriote yi monsieur le ministre gi nii secrétaire d'État Ibrahima Thiam nekk ancien président CPS Dakar liggéey liggéey bu am solo ci parti bi. tey nag nga ñëw ci inauguration usine bii nga xam ne 2000 personnes war na koo jël. ci jeunesse bi. te jeunesse bi bëgg nañ liggéey bëgg nañ nga wax président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye. parce que démb bi ñu yëgee ne dañuy nekk fii di inauguré ba léegi. sama message yëpp li ci fees dellu mooy fan la ñuy jaar ba liggéey fii ci usine bi. incha allah dèjà maa ngi lay si liggéey bi ngeen mhm. ñu gis alerte bi ngeen def. Mhm. baax ci li ñuy liggéey dina am incha allah. toll boo xam ne surtout suñu bi ñu teg mooy l'industrie des PME. dafa xaw a yàqu. Mm-hmm. soo am problème yu bëri. voilà li ñu def état des lieux bu xool jafe-jafe xam ne dund nangu depuis des années au mm-hmm. surtout par rapport aux jeunes yi nga laaj. Mm-hmm. au PME PME et au PME. di ay solutions jàppale entreprise compétitive di créer emploi. créer richesse pour l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. incha mu ne dégg ngeen li mu wax nee na usine yi ci boppam liggéey liggéey bi ci boppam la état bii fi nekkoon yàq léegi faaw ngeen may leen temps ñu mën a defaraat usines yi nga xam ne moo yàq même ministre bi wax na ko ci biir nee na liñ tëj ci ay usines yoo xam ne dañ ko tëj ëpp na 40 usines yoo xamante si nii dafa tëj yu mel nii yoo xam ne dañ ko war a ubbiwaat te loolu pour ñu defaat ko faaw mu jël temps loolu nag ñu ngi ciy góorgóorlu kon nañu accompagner ku mel ne Serigne Mbuub ak ñeneen ñi nga xamante si nii am nañ volonté wu liggéeyal Sénégal pour que Sénégal mën a avancer jëm ci kanam incha allah